yëkkati naa libération yéen kaay ne ma teer ba direction générale banque fay dundaloo sénégalais yi jaxan na ma moom responsable comptable bii nga xam ni El Camara lay wuyoo gars yi dafa mel ni dañ koo nennu keroog juróom benn fukk ak juróom la woon jébbal nañ ko benn mooy juróom benn fukk ak juróom benn demande d'explication te bii nag yéen kaay bi ne ma ña ko teg nag ci GPS véhicule fonction yéen kaay bi ne ma document bi ci boppam dañ ko laaj journée 4 avril bi nga xam ne la woon chômé la nekkoon daal dinañuy nag saisir commission bu données situation baa ngay déraillé de nguurug Sénégal di ko seetaan tikkati naage libération yéen kaay ne ma teer ba direction générale baa nga fay dundaloo sénégalais yi jaxan na ma moom responsable comptable bi nga xam ne El Camara lay wuyoo gars yi nag dafa mel ni dañ koo nennu keroog juróom benn fukk juróom la woon jébbal nañ ko benn mooy juróom benn fukk ak juróom benn demande d'explication te bii nag yéen kaay bi ne ma ña ko teg nag ci GPS véhicule fonction yéen kaay bi ne ma document bi ci boppam dañ koy laaj journée 4 avril bi nga xam ne férié la woon chômé fan la nekkoon nag saisir commission bu données personnelles yéene bi ne ma direction baa ngay déraillé de nguurug Sénégal di ko seetaan